<laughs> waa yéen ngeen ne koo leen laal kii xale bii ngeen laal yéen xanaa xamul leen kii dafa rax espagnol Juan Branco bi Juan Branco ngi nga xamante ne dafa laal espagnol laal français yéen xanaa xamul leen espagnol yi ñoo gën a seytaani sénégalais gën a saytaani africain yi xamuleen leen loolu gis nga booy wut ku sikk ba nga yegsi ci espagnol wàññeekul laaj leen ma man joo defante tontu yu saf fii la fekkee baax ngeen ne nag yéen xale bi ngeen di laal yéen yàlla da nattu yàlla yàlla da leen nattu ci ay nit yu féroce yàlla da leen nattu ci ay jeunes yoo xamante ne dunoo wow ba dëgër fit yéen boo leen amoon xel tuuti am jom xale bi du ngeen ko laal waaye foog naa yéen du ngeen di xalaat ak seen xel yi waaye lan ngeen di utiliser pour ngeen di xalaat parce que man xool naa ba xool xalaat ba xalaat yéen àndatu leen ak seen xel àndatu leen ak seen sago may wax nee na lu day ni ministre de l'intérieur nee na dangaa dijji marine tuuti bool nee na mënoon ngaa bind lettre bi nga xamante ne bataaxal boo xamante ne moom bu ko liiree dina la jéem a respecté tout sax dina xaw a ne ah ministre de l'intérieur moo ko bind nee na say français setut <laughs> Antoine joŋ nee nañ dangaa minimiser sa bopp ridiculiser sa bopp nee nañ lu ñuy wut ci ministre de l'intérieur dara nekku ci si yow waaye xawaan ni moo jonge noo xawaan boo jekkoon ak dal kii mooy ministre de l'intérieur les sénégalais ministre de l'intérieur des sénégalais yow tam moo koy wax lii nee li nga bind ci lettre bi dara du ci dëgg ay kàcc la ay fen la ay manipulation la nee na Sénégal dictature moo fay daw te li ngeen def wane na ko yéen du ngeen rus sax ngeen ne da doon jéem a faxas lee ngeen indi seen bopp problème bu gën ngand bu sonko bi kii du sonko de laal ngeen laalaake kii da leen di wili pande fu la leen di wili espagnol yaa ngi ciy wax français yaa ngi ciy wax ñëpp a ngi ciy wax ngeen ne lan ngeen bëggoon a wax ni que procès Sonko bi amul dara lu ci lu ci rax politique léegi nag fi ngeen jàppee xawaan pamte pamte ko jël ay homme yi nga xamante ne ils étaient di ko buntu xataal delloowaat ko ci avion foofu nag ngeen woneel le vrai visage de Macky Sall et son gouvernement foofu ngeen yaxee foofu ngeen tojee yax ba ay waay lii du mburu mburaake la xowaan poobar leen xowaan branco il faut pas les laisser comme ça de <laughs> bienvenue xowaan ces gens là yow yaa leen mënal dara dinañ leen poobar kaani leen jinjër leen xaama dagg ko fii nga mel ni liir buy doog a juddu Antoine Diop gisagoo dara nan dem rek maa mbay ñaa moom bàyyi naa ko ak mu